maa ngi lay ziar waa Equivox yëpp maa ngi leen di nuyu naka waar bàyyi nañ si jàmm jaajëf Fall noo gisee initiative bi nii concert bi naay san concert bi maa ngi ko doon wax seen benn naataango léegi ne ko concert yu mel nii dafa baax xam nga dafa am lu ñuy tuddee RSE responsabilité sociétale d' entreprise entreprise bu nekk ci réew di générer di générer ay fonds waru gar la ci yow nga génne ci fon boobu delloo ko njukkal ñi nga xam ne ñoom ñooy sa consommateur te public bi dañuy soxla ay artistes comme euh, Carlou D Pape Diouf Dip Doundou Guiss Didi Euh, Kane Diallo ñëw parcelle def fi concert gratuit je pense que c'est une très bonne chose c'est une très bonne initiative à saluer euh, aujourd'hui c'est Free demain ce sera peut-être Orange avec Expresso aussi ku ci nekk am nga waar wooy bay ci réew mi ñu ngi leen di gën a ñaax ci initiative yu mel ni lu rafet mix na ba tey sponsor yi ba tey sentir aguma leen ci hip hop bi parce que bu ma déggee benn artiste bu jugee bitim réew di ñëw Sénégal da ngay gis liste sponsor yi day mat 20 mais artistes yi nekk si réew mi par exemple di góorgóorlu di tegal lépp seen bopp avec leur maigre moyen de bord ils ont du mal à joindre les deux bouts et quand ils introduisent des dossiers de demande de sponsoring ils sont très souvent recalés on leur dit non mënul nekk mënul nekk donc je on les voit ñoom ñooy ñëw def seen ay propre événement ci lay mag mais dañu bëgg bu rappeurs yi di organiser acteur hip hop bi ñu gën leen accompagner loolu dina gën a baax dina gën a nice woowuma boycott kenn dama ni Dadju ak Maître Gims suñu ay nawle lañu c'est des gens qu'on aime bien qu'on respecte qui sont très talentueux ñun le 29 dañuy dem Paris def fi fa concert hip hop Galsen mais bu ñu demee benn société française du ñu sponsorisé ñun donc ñu ngi yaakaar suñu doole ci fi dëkk dama ni sponsor yi nekk Sénégal lan moo leen jàpp xanaa ñun dañ ñu xeeb wala dañ ñu tuutal nu mu demee ma ni nañu bàyyi xel ne ñun ñoo bokk ak ñoom réew mi seen société yi bu ñuy dox ba ñu sponsoriser ñeneen ñun ñoo koy consommé ñun ñoo koy jënd nañu gen gestu hip hop Galsen ndax mérité nañ ko mais du xeeb euh, Dadju du xeeb maître Jim c'est des grands c'est des c'est des grands sama artistes yi ma am Sénégal yëpp su ma sañoon ñu egg si standing bu ñu egg clash dafa bokk si hip clash bu dee ne ci hip hop hip hop bi dee le clash est né avec le hip hop c'est quelque chose de frontal c'est quelque chose de très honnête y a pas besoin de passer par mille chemins pour dire à une personne ce qu'on a besoin de lui dire léegi nag clash bi du lu bon lenn rek la ñuy ñaax booy ne leen réew mi ñu nekk dafa am ay kilifa yoo xam ne dañuy bàyyi xel li ñuy def dañu war a bàyyi xel ne saaga yu direct yi dafa ñaaw ci seen der ñoom waaye ñaaw ci bi yëpp ñu wattandiku ko ndax li mu ñuy yàqal moo ëpp li mu ñuy defaral koo xam ne daf lay jiiñ dëmm waru la fekk ngay soccoo yeelu gune lim ñuy porter préjudice moo y' a pas de ay noo classe rapport boo jël ci carrière am ak ko mu doon Amérique États-Unis ah, safurla France Congo Chine tous les rappeurs font du clash le clash ça fait partie du hip-hop c'est l'un des choses amuñu moyen wu fri amuñu moyen wu orange ba mën a teg concert bu mel nii gars yi bàyyi ñu xel amuñu moyen wu def dëkk bi yëpp ay panneaux publicitaires amuñu fay télé yi ak rajo yi ay euh, spot publicitaire li ñu am rek moom mooy ay stratégie yoo xam ne mbedd mee la koy jox. mani wax na ko léegi dama koy waxaat benn yoon après dama yéegal kenn sur scène su ko waxee normalement dama koy jox ay bagages yu bëri fii ci ginnaaw parce nekk kon la benn nit dem yow laa ci bool sa ci ko jara nga ci kaw ma everybody lu ko ci kaw ma gis kii mooy Parcelles Assainies kii mooy fan lu ko indi yow yaa jigéen bi ma sañ a wan ma dégg gis naa bu ne wante yaa ma tooy dégguma leen dégguma leen yaa jigéen bi ma sañ a wan sama nobel bakkan jàmm la bëgg fi mooy fi gën nooy yow umu la yow jàkkaarloog sa nataal um nga sama bopp xaw ma lu ma taal sori nga ci man ba bëgguma ñuy xulloo oh yeah yaa mooy sama jere you are all my life ma ci neex make love all night sama jiko jaral nga ma ba si ovo nisam čiko Đarangama daufima Puerto Rico Nekako se kači Marsaku Rico Yo, yo, yo, yo Sa bandi bandi lomaj gondi Sa sakara ja lomaj ala duci Da ga mamona te dugama prema tuki Ja mu sukira rema Hey, you got a booty so fine Say what? She got a way to drive me higher yo and I love that let's go say get up for stuff xale bi la daf ma saf li love you love you love you love you love you love you love you kabisa jiko jana kama Puerto Rico neka kiosenya pulo pulo man yow la tipo li ma gën a neex ci yow moo di jaral ma daw ba Puerto Rico nekk ak yow sa déguma déguma à part moi man déguma déguma à part moi Sénégal. On l'avait cuisiné pour ceux qui ont la médiocrité musicale. Cela est local, on l'amène à l'échelle internationale. it feel like you look good in my flavor. Come to Lanka, my nigga, buy you the corner, nigga, my mother, check out my car. I don't want to put all the gummy. My father's money, the gummy. Lord, I got my own. Lord, no, On avait cuisiné pour ceux qui ont la meilleure local, on l'amène à l'échelle internationale. Tenu de combat, kingdom, la marque, elle est Sadigo Bamako Dudugo Akimo Gambia xam na ni amu ko Sénégal jot na ngeen gërëm Edimo Edimo tu l'as reconnu depuis qu'il a gâté le corps des gens là on est à mode sabar tu n'as pas et puis quoi le rythme est là tu reconnais mon frère comme tout Dakar ma nigga bàyyil déconner li nga moom la rëcc nga bàkkaar dama ne ko jël dëgg bi ba fas ñu dëgg bi Edmo ñu ngi lay ziar delloo ziar lan ma waral si taay fii. waaw dama dañ ma invité ci concert bi. donc euh, ma bokk ci artistes yi joué donc ñu defee ko déjà parcelle parcelle nekk sama fief et mu nekk lu normal ma gars yi gars yi boole ma ci parce que je suis des Parcelles Assainies et tey man maa man maa dalal gars yi. you know se faire beaucoup plus souvent et après avec. beaucoup plus de ay perspectives mu gën a yaatu xam nga la wax artistes yi gën a gën cee gis seen bopp public bi gën cee gis seen bopp et après tout le monde est content. sa carrière may waayal sama album en 2020. ok léegi ñu xaar ñu xaar ay euh, concert ay grand théâtre wala. plus que grand théâtre sax dañ koy def bu soobee yàlla. ok léegi Edmo euh, ak cinématographie artiste musicien ak cinématographie la nga ñu mën a wax ci loolu. Euh, expérience bu bees. ba pare mu ànd ay. mu ànd ak euh, ay réalité am et yàlla def na ñu ngi sant yàlla ñu ngi ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy def ñu ngi bay suñu waar et gars yi kontaan nañ ci. jaajëf